waaw ñun de ñun dañoo xëy ñun ñëpp ñu wàcc gars yi ñëw fi ay 3 heures du matin xam nga ñëw fekk fii yenn oto yi yóbbu ko waaye yenn oto yu baax yëpp yóbbu nañ dañuy fekk oto bu baax sama nga xamante ne am na basile lépp ñëw fekk lépp yóbbu ko xam nga loolu dëgg di yomb xoolal xoolal xoolal marché nu mu mel gis nga marché bi ni mu yem xoolal leen ne fee da gis fee ne car mun na saara ne rey fi ay nit yu bëri waxuñu si loolu xoolal ñun fu ñu nekk ñun laaxatoo immeuble yi ku si am problème avant tout ngay gis sa mbokk mécanicien yi a gis ku si yenn lu diis muy gaz muy ak lu mu mënti doon mécanicien yi ngay gis dafa am yenn yoo ne rafetul fii ñun ay dëkkandoo ñun xam nañu àq tamit wala ñu fi gisee la nga xam ne naka sudul noonu ñun dañuy xëy di bale fii xoolal bayaal bi nu mu setee dañ xëy di bale lépp bëgguñu sa gaare fi waaye tey ñoom bu ñu gisee naka sudul noonu ñoom léegi mécanicien yi la ñuy njëkkal li ku ñuy ne Amet ak Bart ñoom ñoo ñu gën a teg soog ñoom nag bu ñu moytu ñun ay jeunes lañu ay ndaw lañu tamit xam bu ñu fi jëlee tamit mënoon nañ nekk nekk su lu ñu neex naka sudul noonu waaye dañoo bàyyi lépp ngir bëgg lan liggéey kese ndax ñun liggéey rek moo ñu tax a jóg xam nga yenn yi tamit rafetul quoi xam nga ñun tamit dañoo nekk tamit wala ñoom dañ ñoo bëgg jëlee tamit pour lan nit ki boo koy jëlee fii day fekk nga am foo ko teg wala dëgg waaye tamit gis nga xoolal xoolal marché bi nu mel ak rond point fii nii car rapide bi ñëw da ngay rëm car rapide avant moo am frein cinq fois lay pompé frein cinq fois pour mu mun a am frein loolu noonu ñu bàyyi fi marché bi waxuñu dara ñu bëgg a yëkkati mécanicien yi nii si zéro waaye tamit nit ki boo ko yëkkati tamit nga am foo ko teg yéen avant ñuy ñëw di def lu ni mel euh, maanaam joxuñu leen sommation wala ñu avertir leen ni leen fii war ngeen fi jóge dans leen wax dans deux jours ñu ne pour ngeen jëlee fi xam nga tamit nit ki bu ngeen fi jógee dans deux jours wax nañ leen fu ngeen war a dem. non waxuñu ñu fu ñuy dem. rek dans deux jours ngeen jóg dem seen yoon. te loolu loolu maire bi defu ko dañ ñi nga xam ne ñoo nekk si gox bi ñooñu fa bëgg a jëlee par force waaw ñi nga xamante ne ñoo nekk. dañu ñaaw njort si seen comportement wala nekkin bi ngeen fi. agression bu fi doon am nii mécanicien yi ñoom ñoo fi jëlee loolu yëpp sàcckat yu fi doon nekk yëpp agressif mécanicien yi ñoo fi jëlee dañoo xam ne dëgg te yàlla tax fii nii fii ni mu meloon matériel taay waaye fii mécanicien yi ñoom ñoo def loolu yëpp ñoom tey bu ñu amee ba am jàmm mécanicien yi dañoo war a sant di leen gërëm seen kër yi ku si mun si tax wala ngay yenn lu dis mécanicien yi ngay njëkk a gis doo gis keneen mécanicien yi seen doom yi ay tubaab dañuy dund ak ay ceeb gaz ndox lu nekk la ma loo ay gerte caaf sa yónni na ma ko mu xam sa bi sa xolo boolu mu xam sa sa yenn na ma ko yóbbul ma ko si doomam bi feenee xolo dafa may yenn yenn la na ba ma ba sonn waaye tam xam nga yéen tamit ñoom tamit ñu ngi sàqu daal quoi bu nekk dañ ñu fiy jëlee sax nañ ñu utal fu baax quoi moo gën waaye bu nekk tamit xam nga dañ ñu a jëlee te utal ñu place bu baax tamit ñun dañuy nekk suñ naka ñun tamit am nañ fit boobu noonu def ko waaye xam nga xam nga ñu bàyyi yooyu noonu yëpp tamit nekk si dóor waar bi tamit xam nga ñoo ñu si a mun a jàppale tamit fii bëri na ay jeunes yoo xamante ne naka suñu noonu waaye tamit xam nga yeneen ñu war a jàppale tamit benn instant ni tamit yow tey boo amoon message boo xam ne da nga koy lancé surtout ñi nga xam ni euh, ñooy ŋànk localité bi maanaam maire bi ak commune bi quoi euh, yéen euh, commune Grand Yoff xam nga mm-hmm. ban message nga leen lancé pour ñu bàyyi leen xel wala ñu jën leen xool place bu gën a baax fi ngeen nekk. waaw ñoom kay ñoom ñoom ñoom war nañu xam tamit gis nga nit boo nekkee fenn tey xam nga bu ñu fi waayu jëlee tam ñoom dañu war a si place bu baax. waa grand fi yëpp ku maire bi ñoom ñëpp kay ñoom war nañ ñu utal sa place bu baax fa nga xam ne war nañ ñu fa mën a teg. non dañ dund bu métti quoi lu ñu métti la quoi parce que nga ñëw yeewu fekk ñu yóbbu nga ko la ñuy métti trop foo xam ne fii yàgg nañ fi depuis 97 ba léegi ñuy fii ah di gérer fi fii lépp ay mbadi la ñoo ko tonne ba mu naaj defal ko ba mu naaj toog fi di fi di fi job xam nga fii ñoom fii immeuble ñoom daawuñu weer fii lu ñu fi weer gars yi weeri ko mais à cause de ñu moo tax loolu amatu fi dañ doon leen yéeg def lu nekk mais ñu ñoo tax loolu amatu fi mais tam bu ñuy liggéey di daan seen doole doole mais defuñu yi nga ñëw fekk ñu oto jàmbur yóbbu ko bagage jàmbur yóbbu ko la indil ñu ay problème yoo xam ne ñu demee gars yi yoon mi lañ leen wax si kaw yoon mi lañ benn oto kii mais kaw yoon mi lañ leen wax ñoom ñu ñëw si biir dugg si fii est-ce que ñoom dañoo jàpp ni garage mécanicien ci biir quartier nii rafetul moo tax ñu bëgg leen fi jël mais tamit nit boo ko fi jëlee da nga am foo koy teg mais bul jëlee nit ba pare gaan fenn war dana dana jëlee leen fi ay ñoo xam ne ñoo xam ne ñëpp fii lañ amee seen lépp ah fii la ñuy booy yu bëri la ñuy former fii ku tës si école fi nga koy indi ah booy bu dëng boo ñëwee indi leen si garage mécanicien mécanicien ñoom li ñu teg ñun duñu ay nit quoi ñun ay nit lañ ñun ay doomu dëkk bi lañ dañu war a jox cër bu ñu moom waaw oui tey boo amoon message boo xamante ni da nga koy lancé autorité yi surtout muy commune Grand Yoff bi leen coiffé yooyu euh, surtout maire bi lan nga koy wax. ñu teg ko si yoon nit boo koy jël da nga koy teg foo jëlee nañ fi ba ñu fi jógee mais nañu teg foo xam ne ñun fii wala ñu jëlee fii dañ leen di ah yóbbu leen fee ñuy liggéeyee ñu liggéey ñu toog foofu job ñun ba ñu jógee fii de mais nañu teg foo xamante ni mais ay ñun ay borom kër lañ de tuuti nañ mais ay borom kër ñëpp dañoo yor ay njaboot yor jabar mais tamit benn instant tamit boo fi jëlee ñun amuñu ñuy jox suñu njaboot yi fii la doole fi lañu yaakaar waaw oui. Euh, ci loolu yaakaar nga ni lii bu ñu ko continuer du def est-ce que du ñu pousser yenn jeunes yi ñuy def naka su. moo tax agression yu bëri agression yi ngay dégg yëpp lii la fu ngay daanee sa doole ngeen daal fii doo liggéey jeune bu liggéey lu muy seen doole nga naan doon fi liggéeyee fii la ñu yaakaar suñu kii ngeen doon fi liggéey nu ñuy def dañuy wax ne dëgg ah agression yëpp lii moo ko indi lii nga war a liggéey war a faj bu mu gàcc mënoo ko faj sa yaay nga xool tourné sa yaay war ko jox dépense waroo ko jox dépense sa jabar nga toog war ko jox dépense waroo ko jox amoo dépense boo koy jox nooy def sam waa ji da ngay dem jël loo moom loolu nga dem agressé te loolu lu ci mel nii mooy mooy tax mbëkk meeg yooyu Barça wala Barça ba bi booy yi bëri ngeen dëkk bi am na booy fi nekkoon mais dem nañ kenn xamul fuñ nekk xam nga mais benn instant tamit xam nga nguur gi dañ jàppale jeunesse bi quoi Macky Sall moom dafa dañ waxoon bu day jàppale jeunesse dañ jàppale gisuñu suñu bopp si nguur gi quoi waaw ñun mécanicien yi moom gisuñu suñu bopp si nguur gi waaw. léegi yow lan ngay tàggatoo lan ngay ñaax ñi nga xam ne ñooy jeunesse. utal ñu fu ñu nekk parce que dañuy firnal lii firnal la quoi. waaw nañ utal fu ñu nekk rek ñun jàmm na ñooy